beneen bi mooy du de ci beneen côté bi mm-hmm. on nous parle de du ministre de la justice Ismaïla major Fall récemment muy wax ne Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall euh, kenn amnistie wu leen donc defe naan dégg nga dégg boobu déclaration euh, déclaration boobu lan lay signifier ak euh, naka la mën a daal di influencer cette candidature ci élection yi disons Karim ak Khalifa dañ leen gracier bon maintenant modification du code électoral dafa introduire benn benn benn article mhm. euh, comme quoi que mën na bu ñu la gracier mhm. euh, mën nga nekk candidat mhm. donc ça sur le plan du code électoral euh, Khalifa ak Karim mën nañu participer toute personne condamnée est graciée est graciée d'accord donc là c'est clair et net mais par contre pour pour am euh, pour am dossier complet il, faut par exemple le quitus mooy quitus fiscaux yi quoi. les quitus fiscaux. Mm-hmm. mais ah kenn ci ñoom amul quitus fiscal. c'est compliqué mais loolu suñ ko dugalee. ça suscite réaction suñ ko dugalee euh, ci ci dossier bi euh, amoo quitus bi mais conseil constitutionnel du la du du bàyyi dossier boobu jàll. Hmm. ah non. waaw moom c'est c'est ça va être ci kii c'est un dossier incomplet. d'accord. maintenant pourquoi le le le le ne loolu c'est piège la kon. waaw c'est en tout cas c'est bien possible parce que boo xoolee Karim Wade euh, en 2019 bi ñu ko jugé gracié ko Karim pouvait participer. Mhm. mais gouvernement bi dafa introduire benn subterfuge juridique comme quoi euh, ci loi ci code électoral bi Karim mënatul am statut électeur. Mhm. mais loolu c'est c'est une procédure euh, euh, à l'Assemblée am nañu mmh. seen majorité voté nañ ko tere nañu Karim mmh. mais la même chose est possible avec Karim et, et Khalifa si jamais réglé wuñu problème boobu avant avant ñuy déposer seen candidature mmh. et, et je pense que loolu moom c'est c'est vrai que c'est c'est c'est un risque bon plus maintenant soo ci boolee Karim honnêtement am na lu ko tere ñibbisi Mhm. honnêtement. kon foofu deal ba moom c'est clair. Ah, non seulement il y a deal mais il y a accord parce que su amoon deal sax Karim décide de violer deal bi. deal il allait revenir. c'est un accord. parce que depuis boobu yàgg na ah y avait des accords s'il depuis deux ans mënul mënul toog. bëgg aéroport bi c'est compliqué. bah, mais, le, euh, le, juge, l'avocat de, de, de, Ousmane Sonko, il a défié l'État du Sénégal. mais mais mais mais mais <laughs> lan mooy léegi euh, maintenant Karim Meïssa Wade Khalifa Ababacar sa lan mooy scénario possible yi ñu mën a envisager ci ñaari candidats yooyu ak euh, leurs partisans surtout. ah ce qu'on peut envisager c'est que ce soit pour Karim Wade ou, Khalifa mooy que bah, qu'ils veillent au, au, dossier qu'ils vont déposer. <laughs> ah bientôt parrainage bi dina am. Mhm. bon bien il faudra faire le le parrainage. mais mhm. maintenant parrainage bi aussi il faudra choisir. Mhm. est-ce que c'est le le le le le parrainage citoyen ou est-ce que c'est le le parrainage parlementaire wala des élus locaux il faudra faire le choix. bon mais deuxièmement il faut constituer aussi un dossier de candidature. mais dans ce dossier-là. mais ñoom ñoo war a lijjanti seen cutus. mais xam nañ que cutus soo ko amul doo jàll. donc quand il faut que ñu ñu def une démarche au moins pour avoir le cutis suñu leen bañalee cutis bi ñu au moins ils vont être alerte euh, alertes. mais je pense que waruñu toog quand même euh, euh, comme on l'a fait en 2019 c'est-à-dire dem déposer ñu dàq la euh, tu croises les bras c'est terminé loolu quand dafa ñaaw ci des grands partie comme comme le PDS ou comme euh, ou comme Taxaw beneen bi mooy puisqu'on parle de de de jury de justice mooy on a vu euh, ñii di ay avocat Ousmane Sonko def benn grande offensive ah ndaxte ba ci njëkk mooy dañoo déposer ñaari ñaari requête yoo xamante ni nii ñu ngi ko yóbbu ci cour de justice benn bi dañ ko déposer devant cour de justice bu CEDEAO bi ci topp yi tamit ñu déposer ko ci cour suprême bii bu Sénégal donc ñaar yëpp daal en quelque en quelque sorte avocat yi la ñu bëgg mooy dañoo bëgg ñu annuler euh, wala ñu suspendre d'une manière définitive euh, li nga xam mooy décision décision bi jëm ci wàllu dissolution wu formation politique bu Ousmane Sonko di Pastef euh, déjà grande offensive boobu noonu naka nga koy jàngate non c'est normal c'est normal euh, actuellement Ousmane Sonko il est en prison mënul mener aucune lutte politique Pastef dañ ko dissoudre donc politiquement. Pastef le Pastef est désarmé sur le plan politique mmh. amatuñu benn possibilité pour mener une lutte légale même seen euh, parlementaires yi mmh. bon euh, amuñu doole boobu donc il ne reste que la procédure juridique mais est-ce bon. que dina aboutir procédure juridique non je pense que par pour euh, le le pour le pour le ré, euh, c'est possible que cour Sénégal <coughs> reconnaître Mm-hmm. décret bi décret de dissolution de de, de du PASTEF mais ça vraiment c'est c'est illégal c'est un abus de pouvoir mm-hmm. maintenant est-ce que le, le, la Cour suprême aura le courage mm-hmm. de de, de de statuer et de donner et de suspendre ou d'anéantir la décision ça c'est on revient à la, même question ah c'est-à-dire que nos juges quand même ils ont des problèmes par rapport au pouvoir exécutif mais normalement euh, le, le, le, le PASTEF doit quand même continuer d'exister. C'est un abus de pouvoir. Parce que ba léegi aucune décision de justice n'a prouvé que le PASTEF a commis des actes euh, qu'on qu lui reproche. Mm-hmm. Il n'y a pas de jugement. Mm-hmm. Ah, donc le gouvernement aurait dû attendre au moins qu'il y ait euh, un procès de Ousmane Sonko ou un procès de, de, du PASTEF, mm-hmm. qu'un tribunal décide que le PASTEF est dans l'illégalité, qu'il qu c'est une organisation euh, qui trouve l'ordre public. Il faut qu'il y ait une, une légitimité juridique. Mm -hmm. Et là, je pense que la Cour suprême maintenant annuler la décision ou la, ou la suspendre. Que... Vous pensez Non, c'est possible. Parce que c'est un abus de pouvoir manifeste. Mm. Ah oui, ça, ça je pense qu'ils peuvent avoir raison. C'est comme le, la Cour de la, de la CDAO. ça, objectivement, ben, <coughs> le gouvernement ne, ne, se réfère plus euh, aux lois de la CEDEAO. Mmh. Il y a tellement eu de xam par exemple, par parrainage. waaye parce que loolu moo tax may laajte ndax dina aboutir parce que dañu gis ne ñun bokk nañ ci CEDEAO mais souvent am na yenn ñoo xam ñoom bu ñuy statuer ci yenn yi euh, duñ ko respecter noonu. ndax on se rappelle bien gis nañu parrainage ak yeneen ak yeneen ak yeneen ah. Euh, moo tax may laajte ndax mën na aboutir loolu. non mën na aboutir mais c'est vrai que tu as raison que que gouvernement Macky Sall bon lu ko arrangé lay def ah. respecté wul euh, en tout cas pour ce qui de la CEDEAO le le Sénégal a tourné le dos au à la charte.